ba noppi lànk kandaar nar na doon bàyyi te saabul xëyee rek di gën a tiital askan wi ñoo nekk ci xët wu njëkku yéen laas la turbine faj fajri les échos vox populi ñoom ñëpp ñu amee seen xët wu njëkku yéen a kaay aku xayma ci woppi covid 19 ji maître Seydi ak Ibrahima ko li leen naqa rek li leen neex lépp ñoo ngi koy yàbbi fële ca vox yi ñu àndandoo yéen xët bu njëkku journal bi maître Seydi nee na téeméer boo jël juróom fukk yee bu ñu leen xoolee manes nañu ñu ci ëpp dañoo amee woppi covid 19 ji ne ko koy feelu naan ko wopp ji kay man maa la mën a wax rek xayma gi weeru juillet moom génn moom dafa tàng jépp rek ci askan wi na téeméer boo jël mën mën nañ na fanweer ak juróom nañ ci woppi covid 19 ji ne amoon nañ lu toll ci 2765 ci ay kaa waaye juróom-ñaar fukk ak ñeent yooyu yépp moom dem nañ barzak bu fekkee weeru mai moom téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent lañ ci nemmeeku nañ ñoo amee woppi covid 19 ji waaye li gën a doy waar te docteur Ibrahima wax ko moo nekk ci xët wu njëkk Vox Populi Ibrahima nee na fajkat yi li ñu buub ci woppi covid 19 ji kenn rek amu ko ci ndax bu ñu xoolee ci xayma am nañ lu toll ci ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn ci ay kaa waaye bu fekkee ñi nga xam ne ñoo laale ci wopp ji te xamuñu fu ñu ko jël di cas communautaire yi téeméer boo jël fukk ak juróom ñeent yépp manees nañ na laale nañ ci jiite fajkat yi du tax may wax lu sama yoon nekkul du samay kàddu mi ngi ci xët wu njëkku Les Échos ak docteur Seydi Seydi nee na dogal bi président Macky Sall jël ci xët yu ni mel sama yoon nekku ci loolu ñoom la engagé ñeneen ñi mu ñor te saa bu ñu xëyee di wër lu koy faj ñoo nekk ci xër wu njëkku laas yéen leen xër wu njëkku journal bi laas nañu bu jéego jeexul waaxu su du jeex laas nañu moom kay rëcc ca yombul waaye ñii moom rëccee nañu ca ñan ñoo ca rëccee ñoom ci xër fukki malade yi nga xam ne ñoo nekkoon ci réanimation ñeent yee ñoom ña nga barzaq waaye juróom benn yee ñoom wér nañ péléñ libération ne ko ñooñu kay maa lay wax ñu ñu doon na kenn ka mu am na fukki at ak juróom ka ca des am fukki fukki juróom-ñett ki ci des am fanweer ak juróom ci ay at waaye journal bi yemu ci ndax nee na li gën a dëgg rek dañ ko waxul ndax néew yi moom ñoo ngi gën di yokk saa bu ñu xëyee Sénégal amati na juróomi néew buñ ko booleeg lim bi fi nekkoon day daal di nekk rek téeméer ak ñaar fukk ak benn ci ay néew ak fanweer ak juróom benn yoo xam ne moom ñu rëcc ca yombul ñeneen ñi ca rëccee woon te nar a tëjaat seeni buntu ñoo amee xëtu njëkku laas yeneen xëtu njëkku journal bi benn élève bu yeewoo fële ca Jurbel moom lañ xool ne moo laale ci woppi covid moom koy bu ñu maytuwul dinañ tëjaat seeni buntu rek tëjaat seeni buntu ku leen rey la ñu yemale ne liñ ci def moom ku ko xam doo ko xalaat ba koy jëfee du samay kàddu yeneen xar wu njëkkal observateur ñu fekk fa Khalilou Diallo Khalilou Diallo nee na amul benn ministre bu yore wàllum njàng mi bu ñuy wax li ñu def ci njàngum ren mi ne ci xayma def def nañ ci lu toll ci junneeg juróom-ñeen fukk ak juróom ci ay milliards moom kay xawma lu ñuy def waaye année balance moom du am ci mim réew laatu bi mel ne ko feelu naan ko man de waxuma la dara waaye xale jot na ko wàll papaam ak yaayam yam ca famille ba ñeneen ñi koy wàllante ci seen biir te bu ñu yebuwul wàllaat ko askan wi ñoo nekk ci xët wu njëkk vox pop kër gi yor lépp lu jëm ci ndox mi ñuy naan di ki ñoom la ñu xoole nakat dañoo laale ci woppi covid 19 ji ñeneen ñi laale woon ci faatu binta kamara gi ak tamsir saane ñoo nekk ci xët wu njëkku les quotidiens na li leen nar a dar seddut fukki at ak juróomi kaso lañ ko daan moom Moustapha Ndiaye moom mi faatoon binta kamara waaye kenn du pël moom mi nga xam ne moo faatoon commandant tamsir saane moom mi nga xam diirug dundam ak ñeenti xaritam ba lëg ak jàmm